bu ko defee kon loolu moo indi nit yàlla yépp ak ñi gëm yàlla ak ñi bëgg lu baax di wut ay dog yoo xam dañ koy saxal ngir jaamoo ko yàlla ngir mu seneel seen xol xam ngeen ne xol day xumaag loolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi daa wax ne soo defee aw ñaawteef wala mooy yàlla dañuy tomb tomb bu ñuul ci sa xol boo defaatee beneen ñu tombaat beneen tomb loolu nag dafa wax ne bu yàggee xol bi day lëndëm këriis ne loolu mu arraan kalla kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibun yonent bi ne loolu muy arraan mooy xol boo xam dafa dem ba muuru ngir lëndëmu mooy yàlla yi xol bu mel noonu nag yonent bi daa wax ne foofu day wow nga xam ne nit ku mel noonu dootuma tey dégg sax ak waare bërëb yu baax yeeg fi ñuy waxee lu baax yépp du ko neex da ko du ko saf lu baax da koy soof yàlla yàlla musal ci lu mel noonu yonent bi wax nag ne boo dee def lu baax nag day xacc xol bi di ko leeral xol bi nag bu yàggee day leer bu leeree nag mi ngi mel ne bët bi rek bët bu demee ba mën a gis ci la mën a gis leerug jant bi xolit bu leeree ci la mën a gis leerug suñu borom tabaraka wa taala moo tax yonent bi wax ne inna alquluba tasda'u kama yasda'u alxadidu qiila wama jilaa'uha ya rasul allah wala wama jalaa'uha ya rasul allah mu ne kasratu tilawati kitaabillahi wa kasratu dicri lillah ay riwaayaat yu bëree bëri la am na benn riwaaya boo xam ne wax ne kasratu dicrillah rek wama jilaa'uha ya rasul allah mu ne kasratu dicrillah am na beneen boo xam ne wax ne kasratu tilawatul quran maa dañ ko dafa wax ne xol de xumaag léegi nag ni weñ gu ñuul di xumaage ba dootoo séen lu bokk ci weñ ga noonu la xol di xumaage ñu ne ko yonte bi lan mooy xacc xol ba mu dellu leeraat naññi mu ne leen bari la tudd yàlla beneen nett li bi mu ne bari la jàng alquran ak tudd yàlla beneen nett li bi mu ne bari la fàttaliku dee yooyu yëpp wax na ko ci kon tudd yàlla dafay xacc xol da koy leeral abul hasan cheikh abul hasan al basri al hasanul basri boog al hasanul basri dañ ko mës a laaj wax danaay bu ñëw ci moom ne ko man de sama xol dafa wow ba ma yëg ko ci sama jëm ashku ilayka qaswata qalbi mu ne ko adnihi min adikri boo bëggee mucc ci wowu xol da ngay fexe ba di tudd yàlla lu baree bari kon tudd yàlla mooy indi taxliya mooy génne ci sa xol mbooleem yu bon yi xam nga xol lu mel ne rëy ci lay dëkk naw jëf ci lay dëkk waru ci lay dëkk yëg sa bopp jàpp ne yow kese yaa am wala yaa gën ñëpp loolu ci li ci xol lay boof nay ak mer ak ngistal ak bëgg ak mooy yàlla ak bëgg a fayonte ak coxar ak wor ak fuqle xeer yooyu yëpp ci jàngo yoo xam la yooyu nag tudd yàlla yu bari ak saxoo ay jaamu yàlla yu bari moo koy raxas ci xol ba mu set wecc bu ko defee nag ci la taxliya di am taxliya mooy jikko yu baax yi ñëw dëkke sa xol nga tàmbalee yëg ak dëggu akuk sellal mooy li ngay def yàlla kese tax nit ñi doo jëf ngir ñoom xam yàlla tàmbalee ñëw xam ne yàlla des ko war a jaamu ak li aju ci yi ñu war a gëm ci moom yépp nga tàmbali koo gëm wakiirlu ci moom tàmbalee dugg bëgg yàlla tàmbalee ñëw tudd yàlla lu bari ñëw yàlla neex la nga di ko sant ci lépp xéewal yépp nga di ko delloo ci moom ak ragal yàlla tàmbalee dugg bàyyi xel suñu borom mooy muraqaba tàmbalee dugg ak xalaat xéewali suñu borom yeeg mbindeefam yeeg yi nga xam ne dalay delloo ci suñu borom ak yaakaar ak muñ ci bu fekkee ne ay nattu la tegu sa kaw ak doylu ak shawqu ilallahi yu demee noonu yooyu mooy yi nga xam ne bu xol setee yooyu ci koy dëkke foofee nag la mutasawwif fee di wax ne ci la tajalli di am mais taxliya mooy jiitu taxliya topp ci tajalli dooga am tajalli nag moo xel ba bu sellee te set leerug suñu borom tabbi ci subhanahu wa taala nga mos neexitu ngëm yéen def daana daana wax ne daqa xalaawatal iman nga mën a am nag safaa ur ruuxi ruux bu sell gu set nit ñu baax suñ fii bërëb yi miin nañ lu mel noonu xamul nañ fi ay jëmm yoo xam ni ci cellte cellte ci ñoom la mën a yem nga xam ne xamuñu lu bon lu bon sax du toq ci seen xelam loolu mën nañ ci tudd ñu bëree bëri ci waa kër sëriñ bi ku mel ne Cheikh Abdou Khadir Mbacké mu baax ma ak ñu waa kër sëñ bi yëpp kon tudd yàlla dafa am jeexit te itam alquran ko digle suñu borom wax na ci alquran ba tàyyi dinañ wax ne tudd yàlla ci alquran kasiiran la sant uzkurullaha zikran kasiiran wadkurullaha kasiiran yaa ayuha alladina amanu uzkurullaha zikran kasiiran wa dakarallaha kasiiran wa dakarullaha kasiiran kasiiran kasiiran wa dakirina allaha kasiiran kasiiran rek mooy na bari maanaam tudd yàlla fu ko suñu borom waxee day xam na bari moo tax murid yi am tawféex joo xam dana ci ñëw xëy na ci tudd yàlla yu bari gis nga weeru màggal bi rek ba mu tàmbalee ba ba ba tey am na ñoo xam ne bis bu set ñu xëy def ay bis yoo xam ne bisu xasida lañ ko tuddee tàmbali di jàng xasida yi nga xam ne tudd yàlla kese la xasida tudd yàlla yi gën a kawe la ci suñu borom daje la suñ suñ suñ suñ tuwaa dajale mooy xëy la la istigfaar salaatu ala nabi sant suñu borom ak tagg ko ak wax xéewali suñu borom yeeg yu demee noonu di ko sant yooyu moo moo daje ci xasida waxtu wu ne nag murid di ko jàng loolu mooy zikru kasir rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne siiru sabaqa al mufarriduuna yenn riwaaya al mufraduuna yenn riwaaya yu bari am na ci ñu ne ko ñan yooyu mufarriduuna mu ne addaakiruuna allaha kasiran ñooñu raw nañ waa ne ñooñu raw nañ mooy ñi nga xam ne waxtu wu ne dañuy tudd yàlla nit ñëw na ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga dénk ma ndax l'islam daa bari ay ay ay xeeti jaamu yàlla ma bëgg nga dénk ma ci loo xam ni bu ma ko saxalee dinaa ci mën a moy di ko saxal mu ne ko laa yazaalu lisaanuka ratban min dikrillah yonte bi daane wax ne maa amila aadamiyun amalan qattu anjaadahu min adabillahi min dikrillah doomu aadama jëful jëf ju ko gën a may ak ju ko gën a mën a may ak mucc juraw tudd yàlla subhanahu wa taala mas naa wax moom yonente bi ne ala unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaqi aldahabi walwariq wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum da wax ne xanaa duma leen wax jëf joo xam ni moo gën ci xeeti jëf yi gën caa sell gën leen caa mën a yëkkatal ay daraja fa suñu borom gën leen a mën a jegeleeg suñu borom ëpp solo fuuf nga jël sa alal jëpp di ko joxe ci yoon yàlla ëpp solo fuuf ngay jihaat ci yoon yàlla waxtu wu ne ngay cor doq ñi nga xam ne dañoo noonu lislaam noonu suñu borom ba songu lislaam ñoom it ñuy jox jox mooy jihaat daal lu ko gën a kawe saxaaba yépp ne ko balaa yaa rasulallah loolu koy bëgg dañ ko xam lool mën leen dikrullahi taala tudd yàlla subhanahu wa taala loolu mën nañu ci wax lu bëree bëri tudd yàlla dafa am jeexit yu ci ne benn la ci jëkk mooy lislaam da koo digle muy matlab shara'i boo xam ne képp koo xam ne bëgg na ngërëmul yàlla doo ko neenal bu ko moom faw nga am dog ci tudd yàlla tudd yàlla mooy ruuxub jaamu yàlla yi nit ki nga xam ci tudd yàlla bu agsee ci war a julli julli ga du am xudóor du amuk cawlu Sëñ Tuubaa daana wax ne boo bëggee boo nekk ci biir julli am ci yëg-yëg ba nga ca war a am ci teewlu da ngay fexe ba lu dul jullit nga tàmm nga tàmmal ci sa bopp loolu tudd yàlla nag mooy dundal xol moo koy suuxat mooy tax leeru suñu borom tàbbi ci ba nga mën a teewlu suñu borom di ko mën a fàttaliku ci lépp loolu nag mooy tax tudd yàlla mooy ruuxul ibadaati wa taat tudd yàlla moo la indi itminaanul qalb xol bu dal ala bi dikrillahi tatma'innul qulub tudd yàlla mooy indi nga dañ ba set wecc ci mboolem lu bon nit ñoo xam duñ bëgg lu bon dañuy lu bon da leen di naqari mboolem yi gën a neex nit ñi ci xeeti bànneexi xole yooyu sax da leen di soof loolu tudd yàlla moo ko mën a jural nit tudd yàlla ci nga mën a amee nag suñu boroom di la fàttaliku yow jaam bi nga xam ne doo kenn doo dara amoo solo sunu borom mu màgg ma nga xam ne moom moom lépp moom ñëpp chaque lépp wax na ne foo tooge di ma fàttaliku na nga xam ne maa ngi jotaayoo ak yow loolu ci tudd yàlla nga ko mën a amee ana jaliisu man dakkarani fadkuruni adkurukum loolu ci tudd yàlla rek nga ko mën a amee tudd yàlla bokk na ci ay jeexitam bari na lool bokk na ci ki koy def day àgg ci lu mu ñaan yàlla nangu ko ki nga xam ne du tudd yàlla lu bari ay ñaanam mën naa nangu mën naa bañ a nangu waaye tudd yàlla ngay gis ku ku ko bari àgg ci lépp lu mu wax yàlla fekk ko ci lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinina gis nga sunu maam soxna sëñ sayidna Muusa alayhi salaam ba muy wax suñu borom ne ko dama bëgg nga boole ma ak sama rakk jii di Haaruna dafa wax ne rabbi sax li sadri ba àgg ci haaruna axi usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kasiran wa nadkuraka kasiran nga xam ne mbooloo mi daa bëgg a ànd ak kon rakkat yi ngir maanaam ñu mën a gën a tudd yàlla tudd yàlla lu bari ci boole ko mission bi nga xam ne moom leen defal ngir maanaam mission bi jàppandi leen suñu borom digal gën a jàppandi ci ñoom sayidna zakariya keroog bi mu ñaanee suñu borom ngir mu may ko doom suñu borom da ko xamal ne ko na nga am ñetti fan yoo xam ni da nga koy tëju di jaamu yàlla di ma di di tudd yàlla wadkur rabbaka kasiran wa sabbih bil asi wal ibkaar moom la ko jeexale tudd yàlla itam suñu borom ci alxuraan gis nañ bu ko tuddee léeg-léeg da koy lëkkale ak waxtu yi nga xam ne moom la nit yàlla yi wutal waxtu tudd yàlla muy waxtu ginnaaw suba ak ginnaaw takkusaan wa sabbixuuhu bukratan wa asilan yadcuuna rabbahum bilgadaati walcasii yuriduuna wajhahu wa sabbix bilcasii walibkaar qabla tuluuci shamsi wa qabla gurubiha wa sabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci shamsi wa qabla gurubiha wa min alleyli fa sabbixu muy dem loolu di yonente bi alayhi salatu salaam wax na ci lu bari loo xam ne buñ ko toppee day gën a gudd tudd yàlla itam mooy jaamu yàlla goo xam ne amul ak anam amul waxtu waxtu wu ne mën nga ko def anam goo mën a nekk itam mën nga ko def yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim julli li muy baax baax mënoo tëdd di julli boo ko defee sa julli du dox xanaa nga dem ba tële ci la koy may waaye tudd yàlla mu amut anam guñ koy defee yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim soxna Aïcha daana wax ne yonente bi daana tudd yàlla ci anamam yépp waaw fi kulli ahyaanihi